xam ñan la ñuy xaar ñu joxe ci xaalis les PT par exemple le conseil départemental de Dakar l'État ne donne aucun franc dañuy réunir. Hmm. du réunir bi mooy problème bi mais imagine-toi dans un quartier ñu hmm. signaler leen ay problèmes. alors ko fii amul les centre d'accueil hmm. yi nga xam ne ni étatique par exemple centre di Gindi moo fi nekk centre d'accueil nga fër ay xale nga mun leen fa yóbbu mais bu amul yeneen yeneen régions yi par exemple amul ay centre d'accueil imagine toi dans une autre région xale yi di traîner bu ñu leen jëloon ñu yóbbu leen war am fu leen war a yóbbu fan lañ leen di yóbbu en dehors de ça il y a la stratégie nationale de retrait des enfants de la rue mm. mais ñun par exemple ville de Dakar li ñu ci xalaat mooy mooy nag mu du ñu commencé ci kaw wàcc ci suuf mun mënta nekk li mën a xew mooy il faut que communes yi mën a ñoom tamit liggéey ci mbir mi par exemple à Fass Gueule Tapée il y a un programme ak ñoom UNICEF ak yooyu Fass Gueule Tapée am nañu arrêté municipal boo xam ne ki interdit la mendicité à une certaine heure dans la commune. Mhm. un de deux les daara qui sont dans une sphère. Mhm. d'un quartier. communauté bi ci boppam ñoo porté daara bi. Mhm. maanaam xale yi vendredi lañ leen may ñu dem yalwaat. mais dañ ko organiser. Mhm. ba nga xam ne am na benn heure boo xam ne xale yi dañuy dem ci jàkk yi nekk ci biir quartier bi. Mhm. yalwaan dem ñibbi. Mhm. mais dañu leen organiser ba nga xam ne am na ay ndeyu daara. maanaam ko am looy saraxe. au lieu nga dem ci mbedd mi saraxe bi ko da ngay dem ci biir daara bi. daara bi communauté bi. mooy jàppale oustaz bi. loolu programme boobu am na fi fas Gueule Tapée am na Médina ah. ñooy jàppale. loolu ñun ville de loolu la ñu proposé au la femme ne ko. ñun en tant que collectivité locale li ñu bëgg mooy loolu. Mhm. ñu étendre ko maanaam ñun à la base. Mhm. ñu xool suñu participation. Mhm. balaa ngeen di parce que mënoo leen retirer ay xale de la rue comme ça. romb di jël ay xale. te amul xale yi amoo foo leen amul réceptacle. xajuñu centre di gën di et y a des yoo xam ne ni c'est privé. yooyu aussi état. subvention peut-être la plupart état du leen subventionné ñeneen ñoo leen di jox ay ay ay ay te xale yi dañu war a lekk dañuy feebar. Mhm. ak yooyu donc état am na yu bëri yoo xam ne ni préalable yoo xam ne daf ko war a mettre en place pas seulement à Dakar mais dans les régions. les enfants qui quittent la Guinée-Bissau qui passent par Diaobé. Mhm. et qui viennent jusqu'ici alors que ñun wax nañu ci droit de l'enfant yàggul le 20 novembre ñu ngi doon fêter les 30 ans de la convention des droits de l'enfant mais qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on nous dit. yooyu ñuy romb ak gendarme nga gis benn paa mu yore 13 enfants dugg ci benn oto te laajoo ko responsabilité même on forme la police la gendarmerie pour que xale yooyu ñuy am autorisation parentale pour mën fi dugg mais du ñëpp koy appliquer parce que xale yaa ngi ñëw ba léegi mhm. donc il y a beaucoup de préalables yoo xam ne ni stratégie bi war na ko compléter hmm. ba pare beneen bi mooy ku jóg def daara kon loi bi il faut mu xam statut daara bi kan mooy lan mooy daara. Hmm. kan moo war def daara. kon yooyu yëpp bu amul loi. Hmm. bu régler les questions des daara parce que du ku nekk nga dem ubbi sa boo demee ay yaraax ay yooyu yëpp. lañ ko war a réguler xam kan def daara donc c'est là le problème. oui mais mais mais le procès des oustas. voilà d'Oustaz c'est pas une question d'Oustaz qu'on ne le prend pas comme ça mooy ne responsabilité état lay génne mm-hmm. mooy ne état moo am responsabilité wu ne daara xale yi ne am nañu ay droit mais que ñu organiser daara mm-hmm. parce que xam nga am fii am na ay daara traditionnelle yoo xam ne kenn du ko laal xam nga boo demee zawiya Alaaji Maalik mais bien sûr waa waa Tijaani ñoo ciy def lañ ciy def du état mm-hmm. bu ñuy wax waxuñu daara par exemple c'est érigé en exemple waxuñu daara Fass Touré ce sont des daara érigés en modèle état bi mooy ne état daf ko war a jël en charge léegi lan la ci war a def ci loolu pour jàppale daara yooyu ci loolu ñuy def mu gën a péré mais ñeneen ñi nga xam ne dañuy jël suñu ay doom fu nekk dina indi fi mais bu dee da nga bëgg jàngale alxuraan lan moo tax doo toog Kolda hmm. lan nga bëgg a ñoom ba Ndakaaru gii indi fi xale yi ne fii rek nga leen mën a jàngale donc du procès loolu mooy ne responsabilité état mooy ne dafa am préalable yu mu war a teg ñun tamit communauté yi hmm. collectivité locale yi ñëpp la concerné du ministère bi kese ñëpp ñoo ci war a jóg naa maanaam communes yi bu ñu organisé ba nga xam ne ni ñoom yooyu ñuy joxe ay social buñ ko doon dem di ko yóbbu ca daara ba parce que nit ñi essayé nañ tamit am na daara yoo xam ne ñun par exemple ville de Dakar dañ leen daan jàppale mais on a vu que. Mm. maître daara yi dañ ko daan acheminer seen ay dëkk. Mm. loo leen jox ñu. ñu yóbbu ko ñu yóbbu ko xam nga kon du procès. Mm-hmm. kon yëpp ay responsabilité la mais état il faut mu def préalable. après ñeneen ñi topp ca mais mënoo retirer ay xale de la rue te amoo ay centre d'accueil yoo xam ne transit la. Mhm. transit la même dee benn fan ñu am fu ñu tëdd. ñu naan balaa ngay retrouver seen ay parents. pour yóbbu leen loolu responsabilité état la ci coronavirus bi euh, euh, buuba. man man en fait man man damay wax globalement avant ñuy wax responsabilité euh, famille yi si biir kër yi seen nit ñi ak seen responsabilité ñu am envers seen doom yi. Hmm. c'est-à-dire que l'enfant pour man xale bi sama droit bi sama doom am moom la xale yëpp war a am. Hmm. man foofu loolu laay convoqué te loolu loi moom moo koy teg ba pare du ay citoyen du mairie de dakaar loi moom mooy war na ni xale lii moom mooy àq ak yelleefam te jusqu'à preuve du contraire gisuma benn loi bu discerner entre doomu papis ak doomu deel est-ce que loi bi protéger na tous les enfants mm-hmm. pour man c'est-à-dire am na lu ñuy jéem a xëcc maire bi du seen responsabilité loolu ngay wax quartier yi du seen loi moom moo tënk lépp mooy que lan la xal xale lan mooy àq ak yelleefam ba pare parce que am na loo xam ne njàng mi njàng la am na loo xam ne c'est autre chose loi moo war a definir lan mooy njàng ak lan mooy autre chose. Mm. boo exploité ay xale. par rapport ak nii nee nañ doon ci mbedd mi ñu def nii nii lii ak lii lii ak lii ak lii mais pour loi tegul. je ne pense pas que ñu mën a régler problème wu mhm. xale yi nga xam ne ils sont vulnérables parce que ci mhm. dëkku àddina bi yëpp du mbirum daara rek ndax mbirum école ak mbirum armée ak ni mbirum fépp li li ñuy njëkk def moom mooy que protéger les enfants il faut les mhm. protéger quelque que soit lu ñu def mooy que day jàngi école moom que day dem parce que man man tam man sénégalais la te su ma xoolee ki Sénégal quand sama sama njort xaw na rafet ci jikko sénégalais on n'est pas on des des des un pays de pédophiles. non. quand am na am na ay ak yu am ci sénégalais bu ñu nekkee fukk nekk ay xarit ku ne war nga mën a am rafet njortu ci kii bi on est on n'a pas ce problème là problème bi ñu am moom mooy que te loolu ci àddina bi yëpp la fépp foo xam ni ñi ñu war a protéger. protéger wuñ leen. Mhm. ils sont vulnérables. Mhm. mais man sama njort dafa rafet si jikko sénégalais quand même on n'est pas un pays de pédophile. Mhm. il faut pas aussi ñu jël affaire yi yóbbu ko foo xam ne nekk fa est-ce que on ne pas en train de régler ce problème de pédophilie pourquoi je le dis. aujourd'hui lañ daan nëpp nëppal. buñ daan nëpp nëppal dix cinq yaa ngi feeñ. réseaux sociaux yi ñëw na. l'état est plus un peu plus regardant donc. la nit daan def nit di ko nëpp nëppal léegi dafay génn. Mm. parce que technologie dem na foofu. te loolu peut-être bu ñu évaluer woon mën nañ am ni affaire bi wàññeeku na ci yenn ci yenn responsabilité yi parce que dafa am nu jamono tëddee am na lu daan xew ci ci kër kenn du ko yëg tey jii bu xew ci kër ga koñ ba yëg ko àddina bi yëg ko ñu posté ko ci internet bi gars yi dem def seen ay enquête mm. donc pour man am na lu lu ñu war a rafetee njor mm-hmm. ci jikko. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pour que ce problème sensible-là des enfants de la rue que ñu aborder ko ak lucidité déterminer un peu nan lañ leen di protéger ba duñ leen mën a teg yenn tool yi mais damay bañ ñu ñu ñu yóbbu affaire bi foo xam ne day tiital nit ñi quand même suñu suñu suñu suñu jëw xaw na rafet ci ci Sénégal moi de je je je revendique ça. allez Papis ah, mhm. Bouba li mu wax li mu chuté nii. Mhm. par rapport la prise en. en compte mhm. de l'ensemble des problèmes ah mais pour man dañ ko war a waruñu ko dëkk si cadre cadre yàqamti je veux dire dañ ko war a planifier sur la durée parce que c'est pas une question qu'on règle en deux jours en trois mois mhm. daf lay jox pour nga comprendre c'est-à-dire assimilable par exemple au, au cas de exemple quoi inondation ñu ñu instauré benn plan plan décennal moom c'est sur dix ans la ñuy xaar résultat effectif hmm. je pense que aussi kaw euh, pédophilie yi ak l'histoire des enfants du lu ñuy jël de façon émotionnelle spontanée je veux régler ça tout de wala ma régler kaaw deer ni tout de suite c'est un problème global dafa yaatu dafa bëri ay donc il faut qu'on fasse très attention et qu'on installe dans la durée les pas solution peut-être définitive, mais ce qui pourrait atténuer ou altérer significativement ce, ce, ce phénomène. benn aspect bi dama koy déplorer et je vais poser une question à à Oustaz. Mm-hmm. Euh, dama gis par exemple ce qui s'est passé à, euh, il faut le citer en dommage muy en en justice l'histoire de la pédophilie Oustaz Wakambe et tout. Mm. j'ai vu des réactions ay Sénégalais Oustaz xam nga qui sont sortis pour raconter des choses euh, yoo xamante ne lu peuple loolu lay xaar quoi. Mm-hmm. man en attendant en respectant la présomption d'innocence dès lors qu'il est dans les liens de la détention ça veut dire que am na un problème le temps ñu koy élucider. Hmm. à mon avis mais oustaz oustaz naka lay mën a euh, essayer justifier. Hmm. oustaz buy def pédophile. Hmm. oustaz. oui buy def pédophile. xam bu ñu nee oustaz waxuñu Kant waxuñu Hegel. si si si c'est quelqu'un qui s'inspire de de la divinité de, de Dieu du Coran. n'est-ce pas c'est ça un oustaz. jàngal tabax nit jàngal tabax nit mais lan ngay mën a expliquer ku mel noonu. di cautionner wala di utal atténuer responsabilité pédophile pédophile parce que c'est man c'est c'est ça qui m'a personnellement heurté man daf ma heurté parce que loolu daaw ñu yegg foofu au Sénégal bon question xam nga bu dafa fu mu wax léegi bu am solo affaire bi bu fekkoonte ne woon dafa daan nëbbu aussi léegi pratiquement. ñu bari mhm. nañ ko ragal a def. Mhm. parce que li leen di li leen di dénoncer li leen mën a dénoncer euh, dafa yomb c'est à portée de main. Mhm. mais oustaz bu toll foofu je rejoins Charles il a raison foofu da ngay jël mbirum animal teg yaa ngi dégg boo xamante ni bii du doon doomu aadama nit lay kuy dox di dem yoonam hmm. comme nu mën a arrivé keneen ku nekk hmm. parce que oustaz ci yoon da nga dama lu ma la wax sànq dama ni ku ubbi école man fataha madrasan aghlaqa sijnan ku ubbi école tëj nga prison hmm. parce que lii yóbbu di prison lu nekk di ko jàngal ki nga xamante ni kii dina ko xam ba dafa koy moytu. Hmm. kon yow pourquoi nga koy def. Hmm. kon ki koy def il est condamnable mais euh, sànq saa wax na ko mais da jàpp rek ni moment bi mu koy def. nañ hmm. jàpp rek ni ñu koy def yàlla nañu ump. mais feebar gi ci benn wax naa sànq al asbaab yi koy waral aussi. quelque part mën na am yu nekk ci ginnaaw yoo xamante ni ump nañu ñun. ump nañu ça il faut le dire mën na am ci ginnaaw nañu xaw ma nag xaw ma. mais nag ndof gi moom ndof bi ak feebar bi moom mooy li nga xamante ne bii mooy mën a am ba yi ngay wax yi am ci parce que mm-hmm. boo ko xasee wax def ba pare kay def nga ko lala ca dugal moom ak nite dugalu la ca mm-hmm. ak nite dugalu la ca alors très rapidement rek comme solution li may wax yow loo xalaat